jërëjëf mbokk yi gannaaw bi nga xamante ni jóge nañ pàkk làmbaay nga xamante ni daanaka mën naa ni bawol bawol yi ñu ngi fépp ci réew mi ñu ngi fii ci Médina euh, rue 7 angle 6 certifié ki nga xamante ni saa yu ñu tuddee mbëru bawol da ngay dégg seen xel di dem ci ñoom muy Bada Diome koo ci wax mu ne la Bada Dione Bada Dione Bada Dione nag tey moom lañ fas yéene seet si ak quelque ci waa membre écurie Bawal yi ak ñenn ñi nga xamante ni dañuy dundee làmb euh, dañ koy dundal surtout ñu fas yéene waxtaan ak ñoom daa ñu yëg si sama waa ji siyaar naa ngi waaye lay siyaar ci loo ne sant bu baax a dëkk bi. ñu ngi waaj rek. mu lay yéen. amin amin ah, Bada Dione nga xamante ne moom la seet si tey bokk na ci ñuy war a waxtaanal eh, Père Bada eh, maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar nu nga gisee làmb actuellement. waaw maa ngi lay fay di nuyu waa wasaare yëpp yow moom xam nga nar nga làmb mi ni fii mu toll yëngatuwaat na parce yàlla bu ñu demee ba événement yu mag yi di am ah, ku mel ni Eumeu Sène Lac de Guiers Ama Baldé Modou Lô ñoom Bombardier euh, combat yeneen yu Fallou Ndiaye teg ay Ada Fass ay Siteu xam nga yooyu yëpp ay combat la kon mën nañu ne làmb yëngatuwaat na daal mais bu na continuer nii mu nii mu def nii te aussi simple bi vraiment ñu ngi béy seen waa daal. mu mel ni Fallou bi mu ubbee. dafa dem fële ca Gàmbi organiser fa lutte traditionnelle du bëre simple bu am solo mu neex lool mu ne dama koy indi Ndakaaru bu mu koy indee Sénégal indi ko arène nationale tëggaat làmb jooju mu gën a réussir mu indiwaat ko fas yéene ko dëgmal suba euh, écrit euh, fee tamit ca arène nationale jagleel jagleel ko waa Bawol en tant que yow nga xamante ni ku tudd Bawol xel day dem ci Bada Dione ban yëg-yëg nga ci am ak bi nga ko yëgee nan la la def. waaw Fallou dafa def lu rëy parce que Fallou Bawol la dëkk Bawol la dëkk te mu ngi dëkk capitalu Bawol parce que mooy Lambaay ku ne xam na ne dafa nekk ci digg Bawol te histoire bu mos a am ci Bawol rek Lambaay la amee Fallou foofu la dëkk kon mu ngi mel ni sotti ci def ci rek maanaam bu sargalee waa Bawol vraiment boppam la sargal mais te nag ñu di ko gërëm daal parce loolu yëpp gëm sa bopp la mënoon na dikk xam nga. di teg làmbam di nebtu du bëgg sax ñu xam bawal la dëkk mais comme yàlla dogal na mu reconnaître loolu rek day def suuna bu bawal ñun dañu des lu dul di ko rafetlu ah mu tombeek it euh, bawal euh, fekk ñu ci waajtaay bi méttee méttee métti moom dafa dikk rek yokk si ah kon mën naa ne làmb jooju tey day doon làmb jooju ku yéex doo fa xaj parce que ñun bawal la ñu gën tafaatin day ñëw ci làmb gi dina ñëw bàkku si ñu nit ñu leen mobiliser wu bawal bawal yi dinañ ñëw feesal stade bi mbëri bawal yi dinañ dikk bëre parce que journée bawal la ah te vraiment Fallou it daa doon koo xamante ni ba dañu ko war a jàppale moog promoteur yi dëkk bawal yëpp ñoom Assane ñoom Dieye Kanji xam nga ak Jibi Ndiaye ñoom promoteur yi bawal yëpp daal. vraiment ñoom ñëpp dañu leen a war a jàppale ak ñoom président parce que li ñuy def am na solo daal parce que ku xool luy fàllu def rek nga xam ne ñoom ñëpp bu ku ne jàppee fi bërëb rek dina am te ñoom dèjà ñoom saa yu ñu tegee ku ne ci bu dee dix combat fukki mbër yi dawal lay dawal lay dëkk te loolu it wax dëgg yàlla dafa am solo daal parce que xëy na bu fi nekkul woon mën nañu wet te mën na nañu bañ a bokk ci làmb ji waaye boo xoolee làmb bawal daf ci am doole te ñoom it loolu dañu ci participer daal. suba lan ngeen fas yéene ñëwee arène nationale yéen bawol bawol yi. waaw dañu ñëw en masse rek. bu ñu dikkee di ñu fekk tribune yi booy yi fees ko del taxaw di ñu xaar ñu dikk tafaatin bàkku ñoom welgoon ñoom kewel dikk bëre alaat ba ciy neex parce que moom xam nga ne lépp lu mu ci mën dinañu ko def pour mu réussir parce bawol bawol yi moom boo xoolee ñu ngi fépp ci Ndakaaru parce que boo déggee ñu naa fukki pàkk bawol yeeg juróom da won ne ñu ngi ci bawol te pàkk bu ne gàtt gàtt gàtt dees na lu ëpp lu ëpp cinquante mille personnes amul benn pàkk boo xamante ni feesul stade bi kon nag waa day yàlla bi ñu ñëwee làmb ji dafa war a fees dafa war a fees dool daal. ngeen dëgmal bis bu rëy boo xamante ni tey mën naa ni mooy combat capital bu bawol. muy diggante Tapha Tine ak Boy Niang mu nekk combat boo xamante ni lu ci bari dañ naan euh, examen la boo xamante ni Boy Niang mu ngi koy def ci kaw Tapha Tine combat boobu nan ngeen koy waajee. ah combat bu dee compliqué wul ku waaj waaj boo xamante nii daf la génnee ci débordé waaj bu la génnee ci Yékini Senior waaj bu la génnee ci mbër yu bëri Elton Abdou Diouf Cek yaakaar naa olof nee na kuy jàpp jaan faalewul jiit. jiit nga ko gisee. non faalewul jiit parce que mënu réeré suñu kaw parce que wax dëgg yàlla ñoo ñoo ko ëpp sut ko. kan mooy jiit ne kuy jàpp jaan faalewul jiit. xam nga mooy tafaatin day jàpp jaan booy ñaa jiit la faalewoo leen ko. moom laa moom laa la wax na kuy jàpp jaan jiit jiit ci yow waaw. donte nag lam moom képp ku jël sa avance mën na la daan boo ñaaxee du ko parce que mbër la champion la dafa def ay profem aussi doomi mbër la aussi it nag nanu ko nangul mën na bëre mën na xeex am na mbooloo waaye nag day fekk ni ñaari mber yi dañoo tolloowut waaw mën na daan nag mais tafaa ko mën waaw ah, xam nga lam moom yaa mën tekkiwul ni yaay daan yaa man tekkiwul ni yaay daan mais en tout cas daal ñun pare nañu suñu mbër te bu suur baay bu ñu dikkee dinañu xam ne ñëw nañu andi nañu lu leer nañ. dafa mel ni da ngeen a duggoon Pikine daan magi Ama Balde muy euh, euh, ngeen daan ko bi ngeen daanee Cek dugg ngeen ci Ama Balde Ama Balde fayu mu mel ni neexaatu parce que ngeen dugg Pikine am xale am fa defet di duggaat biir Pikine waraat fa am xale. Pikine daan nañu fa ñu bëri daan nañu fa Boy Sey daan nañu fa Malo Seras soog a daan ceek daan nañu fa de du combat boobu rek la loolu jotewul dara ama Ama Baldé tey mbër la mën na daan ku ne Boy Niang mën na daan ku ne parce la parce que moom bu motee quatre rek mën na daan ku mat cent cinquante kilos est-ce loolu moom société tax ñun xeebuñu ci dara parce que dañu xam ne rek moom mënul ñu mën boo gisee ma ne la diisub ci ñun ñi ñu jëkk a daje dañu ko gën a diis ak ko doole loolu ne la ñun amuñu lu mu war a tiit ci moom amul mu xam nga tabaatin mën naa daan boo ñaa moom kenn xalaatu ko wax man nag ñu nag la ñu tiital moo mu wóor lu ne mbër muy ñuy bëreel suñu mbër mënu ko daan loolu mooy nekk problème ci ñun mais bu ko yàlla dogalee moom dina ko daan waaw. dañ koy laaj ne ko nooy waajee Tapha Tine mu ne ñor tàbbu moo gën lu ñu gësam léegi nag moom dafa mel ni moom booy euh, moom Tapha lu ñor la daan ko du du dara ci moom loolu la wax loolu la jot a wax. waaw wax na xam nga mbir moom lu ko neex la wax te c'est normal mu wax ko parce que it nag vraiment bu fekkee ne da nga am encadrement toll comme yi fi mu toll war yeen entraînement yi dajee yéen mbëri waratoo jël benn combat gëm ne doo mënoo daan mbër boobu ñun xam na ne boo ñàkkum daan amul loolu nag mooy tax ñu waaj waajal ko waaj boo xam ne eh nii dinañu assuré ne moom it ñun pour ñu daan ko du nekk problème ci ñun. ne ko xam nga luy sànkande sànkande mooy lan. ah. sànkande mooy lan. sànq non da ngay bàyyi boo gisee Tafa nga laaj ko hmm. ko. loolu secret la secret la bu Tafa yoroo boppam. ñun xam nañu ko mais yéen nag xam naa xamu ko loolu saw nga dëkk ci kaw gi soog koo xam. moo tax ñu bëggoon xam ak ñuy seetaan. bàyyi ba combat bi passé boo dikkee boo ma fekkee fii ma wax la Sakandé waxu la Sankandé Sakandé la waaw. ma lay bàyyi ba combat bi passé boo ñëwoon naa la ko dinaa la ko wax daal. jërëjëf gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar waaw di la ziar bu baax. mbaa yaa ngi am jàmm. sant maa ngi sant. alhamdulilah waaw Galla. Euh, nga baal ma fàttali ma tur bi tur. Cheikh Anta. Cheikh Anta. président équipe Bawol. a ngi dëgmal bis yoo xamante ne événement yu rëy rëy rëy Bawol waaye dafa am lu xew mooy Fallou Ndiaye euh, Ndiaye production dafa tudd dafa tëgg benn journée suba ci samd bi euh, jagleel ko képp koo xamante ne Bawol Bawol la ban yëg-yëg nga ci am. ah xanaa kontaan rek kontaan en tant que Baol Baol kontaan en tant que xaritu Fallou aussi waaw en tant kontaan aussi en tant que amateur làmb Fallou moom maanaam ñun li nga wax ci moom boo amatul wax ci moom parce que wax dëgg na bu jëlee lu toll ni biisu quatre minutes ni ko Baol Baol yi def na li ko war waaw te Fallou dëgg nit ku baax ñu war ñun ñëpp ñu war koo jàppale. képp kuy bawol bawol gis nga ni Fallou Ndiaye sonné ci bawol ci mbiri bawol yeeg nit yi parce que moom lu mu am bawol la koy yéene bawol la koy delloo waaw kontaan bu baax ci drapeau bi drapeau nañ ci bu baax a baax a baax yow it kontaan nañ ci yow. waaw yow moom yaakaar naa fi ñu mbokkam bawol nga. ñu mbokkam bawol kontaan nañ ci yow bu baax. Hmm. d'accord ndeysaan mu nekk bis boo xamante ni yéen baal bawol yi nan ngeen ko fas yéene ñëwee arène nationale ak nan ngeen ko fas yéene parce que bis bu ñu tëgg rek jagleel ko bawol rek d'habitude dañ daan gis ni bis bi daal dara jaal nañ ko ku mat dara jaal. waaw bés bi moom ni ñu koy waajee fi mu ne moom pare nañu parce que mobilisation bi moom boo gisee sax bu ngay yow ci loolu lañ doon wax pare nañu te dinañ mobiliser loo xam ne nii ku dikk di nga xam ni kat bawol bawol yi foog nañ bés bi. mbër yi nga xam ne aussi xëy na mosuñoo bëre mbàppat mooy mooy ngeen ko yéen léegi yéen ngay dinañ takk ngeen bëre ñun takki seen bàkku waaw ñu bu baax a baax a baax te di jox ñëpp rendez suba amateur yeeg supporters yeeg ñëpp supporters yi yi bëre dóor ak amateur yi lamb samedi yi yëpp ñu leen jox suba rendez-vous arène nationale bi quoi. ñu ngi jàppale xam ne Bawol moom Bawol kese xëy na ci lamb. waaw te kon bu ñu leen tuddee rek bu bu waa ji gën a gore quoi. bu mu goree ba jox lu bés bi. na ko ñëpp na ñëpp jàpp daal pour moom lu mu ci xalaat mu am ci lu koy njortam. d' mu mu nekk loo xamante ne euh, lu am solo la mais écurie bi actuellement fan ngeen toll ak yéen wàccaay ngeen wàcc ak yan combat moo leen gën a soxal ci écurie bi combat yi nga xamante ne moom ren xalaataloon pour ñaar ah écrit bi moom booy commencé nañu liggéey it commencé nañu am ay combat parce que fi mu ne mën naa ne Kewel ak ñax jëriñu taxaw na Xaadim Sam moo ko tëgg Boursin aussi taxaw na moom mobile carrière am na grand combat Ngoñal Faye am na combat waaw kon maanaam am na aussi ñoo xam ne ñu ngi leen dox seen combat ñoom saal Ndeng leer ak Kewel 2 waaw bés rek daanaka liñ naa bés du tuuti xëj na ku nekk ku ne sa bés. kenn du tuutal kenn bésam quoi mais combat Kewel ñor nañu trop parce que daa ci lu mu jógee Bour Sine ñëpp gis nañ ci lu mu jógee combat bi ñor nañ trop carrière daa fu mu ne woon ñëpp ne du mbër mu ci ñun wóolu ñu ba mu yi muy def te dañu mu continuer ci lancé euh, ba na mu koy ba yàlla may ko mu nekk roi des arènes combat yi daal en tout cas combat yëpp ñor nañu booy commencé nañu entraîner di woo euh, Bawol Bawol yeeg autorité yi Bawol yëpp ñu jàppale mbër yi parce que mbër yi Bawol amuñu jàppale da ngay bëre ak sa mbër mbër bu xam ne Dakar la dëkk jàppale yow muy am seen autorité ni mu koy jàppalee yow duñ leen jàppalee te ñun booy yi dëkk Medina bu ñu demee ci maire Medina di leen di daxaat pour ñu yem ci seen maire dëkk léegi aussi ñuy woo maire yi ak autorité Bawol yeeg ak euh, bonne volonté yëpp ñu jàppale booy yi quoi parce que loo xam ne combat yi ñu am ren moom bëgguma. dama bëgg na am ci réussite daal cent pour cent gagné yëpp cool ñàkk jariñu yooyu ñàkk jariñu moom xam naa ne bu dee ñàkk ma ma xamoon weex bay bëgg a dee am ngeen combat bu rëy am nañ combat mais ñàkk ñàkk moom ñoo ko jëlee suñu bët xam ko bu baax a baax xam lu mu bëre xam li ci moom waaw xam nga nit moom boo xoolee ba ne kii nañ ma ko jox c'est parce que étudier nga ko bu baax quoi xam ne ne muy bëre arrangé na ma waaw mais ñàkk moom ñax moom yore baax na daal jarul wax waaw yore baax na baax na wax la mbër <laughs> kaay sëñ Basirou kaay du mën a ñàkk kaay du mën a ñàkk teewal nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay. su ma nekkoon ñàkk jariñu jàkkaarloo ak yow fi mu toll nii lan nga may wax. ah dama lay dalal rek dama lay jox baax ne la toogal. waaw. dina def loolu moroom bërëb. ah noonu laa koy def gan bu ñëwee dañ koy dalal. waaw yaakaar mbër kurpañ rek nañu yéen a mais kurpañ am am na mais daa am foo xamante ni kurpañ amu fool quoi. Hmm? mais dafa am fu mu war a amee wàll fu mu warta bu la moom dañ koy jox ba dalal ko jox ko njarum njarum soow mu toom lan moo tax nga jël ñàkk jariñ. ah ñàkk jariñ lu tax ma jël ko combat la rek damaa xam ne comme man ak moom ay naataangool lañ ci lamb rek looloo tax ma jël ko te affaire bi combat la gis nga digganteem ak Alioune Seye 2 keroog làmb ji mu jéewu la am. mais bu mu sumee ko gis nga état de forme bi nga xamante ni yor na ko fan yii mu demoon Gambie di compétir di jël ay tournois nga dem dugg ci ñàkk te ñàkk loxo yu baax na am na mystique am nay mbokk. waaw loolu lépp moom sax daanaka comme combat bi comme yàlla def na amagul date waaw damay ñaan wér di ko ñaanal wér rek bu suur si quoi parce que fi mu toll nii daal wax ju bari yi jaragu ci jaragu ko ci daal. non fi mu ne nii jarul wax. bëgg a wax wax ñàkk bëgg a wax wax ndax bu ngeen dajee yéen ñaar di ngeen waxtaan. loolu tax ma ne la comme amagul dat amagul dara nii. wax mën da ñàkk. nañu bàyyi boo wax jot rek bu soobee yàlla dinañu wax quoi maaf nañu waaw. suba journée Fallou Ndiaye bi arène national nan ngeen koy waajee yéen bawol bawol rawatina yéen ñi nga xamante ne ay champion ngeen te yéen di takk ngeen. waaw Fallou Ndiaye moom war na sunu la xam nga di doon nit ku baax koo xamante nii def nuy jàppale suñuy combat ak lépp man bu ma juumul Fallou Ndiaye tamat te lan may tegal combat ak lépp lan ma jàppale ci yu bëri kon suba bu xewlee ñun Bawol Bawol ak suñu grand bare joon ak ñoom Cheikh Diouf ak Bawol sans frontière bi yëpp waaw. soo dinañ séntu kéwal takk ngeen bu ne wàcc si làmb ja takk ngeen fan wàcc ci làmb comme li traditionnel la bëre simple la war ngaa mën a takk ngeen wàcc. non man damay takk ngeen damay bëre traditionnel damay bëre mbapat normal waaw damay bëre mbapat barki alxuraan mais ci pet. waaw kon suba du doon du doon ci pet nañ la xaar di nga ñëw. Ah, suba mën na maa wàcc de parce que man yoo mën naa ji fuunu ko foogee mën na maa ñëw de parce que maa ngi dugg ci ay maa ngi waaw. parce que yi nga xamante ni. mu ngi leen gis ci compétition yi ku mel ne général Malika Franc Boy Faye caaka ak yeneen champion yi nga xamante ni ñu ngi fa ak Zambala gis ngeen lu muy def est-ce que tax yéen yi ngeen yaakaar bu nga ñëwee du ngeen am dara. non du loolu sax parce que ñoom ñoo ñuy dem itam dañuy dañuy dem pour compétir rek kenn mënu cee assuré ne tey bu ma demee man maa koy jël xam nga ku ci dugg si ci lam ji boo duggee day foog ne moom moo koy jël te dara des fois nga ñëw waaj ba jot ñu daal la noonu rek lay demee. xam nga bëre bi moom du bëre du bëre dóor dañ lay daan wàcc la wala daan wàcc kon loolu lu ci nit di ragal a dem wala dara amu ci bëre simple moom ku ci demul itam xëy na da ngaa bëggul dem wala dellu sa soir rek mais lenn lu ci métti lu tax di ko ragal moom amu ci waaw. ma lay jaajëfal bu baax eh jaajëfal bu baax. waaw maa ngi lay jaajëfal. looy wax ñàkk sa dernier mot. ñàkk li ma koy wax mooy xam naa ne wax la gën a mën waaw naa ko bàyyi ko wax ji rek. ñu ñu sa si dem. waaw xam naa ne moom wax moom mën na ko moom waaw. du neexee ci yow. non du neexe ci man lu man bu bu bu ñu jàkkaarloo ma rek moom ñu seq wax rek baax dinaa ko ñeer. waaw. waaw. maa lay félicité. waaye maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi am waaw ñu ngi am bu baax waaw. noo tudd. man. George Bush. George Bush. waaw waaw. sor Bush lan moo indi turu George Bush moo tax nga tuddee sa bopp. waa George Bush damaa déggoon ne George Bush dafa bëgg xeex rek waaw xam nga moom dégg naa bu mu doonee nguur bu mu doonee kii nuñ koy waxaati daa dafa doon xeex rek waaw ma man la daa dogal ne man xeex ci lam dama ko bëgg quoi xeex rek moo tax nga tuddee sa bopp billaahi ndax lamb boo amul xeex neexul lamb dënk moo daal duma bëri bëri simple eh. billaahi ndax dama xeex rek waaw lamb day am xeex des fois des fois ñu yéen la arrêté ba say kii nga dem ñëwaat loolu dañuy ne waaw man yooyu may dundal man. yow ñàkk bokk li ñu bëgg. mais ay bëre simple nii jël sa loxo dégg ci bii non non bëre rek waaw ku may jël moom na nga xam ne di nga xeex moom di nga xeex di nga bëre. nga waa ji ba wadd say loxo. <laughs> loolu boobu sa waay moom ma ko loolu sa waay moo ma ne xoolal boo dóoree góos danga koy xool bu ñëwee nga door ko uppercut waaw waaw noonu la affaire demee waaw bu ñu koy waaw toog mu daal waaw waaw xalaatoon naa ko nag waaw ndax gars yi moom ma entraîné entraîné bu wóor nag waaw ci lépp nag boxo contact lépp waaw moo tax waaw xam nga làmb moom boo demee ngay pare tout gaa doo bàyyi dara quoi loolu la noonu la demee nag foo jëm ah man fu ma jëm waaw maa ci sama ginnaaw garaay rek xanaa am nga koo bëgg ku ne sa xel waaw ñoom daal kuñ man a jëla rek ma jël man moom ma kenn Diego buus naa da ngay wut ku mën a xeex ni yow ngay xeex ak moom ngeen di dóor di jaabante ardo ba suba waaye wut koo xam ne da ngay dóor rek mu nelaw loolu baaxul yow xanaa seetaanoo sama combat ak Bougane daan Dame Diouf dañuy xeex di bëri ba mu bilaay mais ñooñu jugal nga ci laa wax dama nga am ku weex xale yu weex ci booy mais sama morom yu booy dañuy ragal nag booy dañuy ragal le bilaay mais was jàmbaar na ma jël amul combat was jàmbaar maa moom combat la daam seen ak Nandi Fall ku ma ci may saas itam ma ku ku ma ci jël baax na bu ñu bëree jàngoro yëpp dajaloo nañ ko jël siti de ah man de maa ngi nii man moom damay xool ku gaay bàyyi fi rek man duñ ma ko joxe ma jël ko. kon baax na mbër. waaw kontaan continuer mer maîtriser lu waay liggéey yaa ko moom kilifa gi noo def. as ça va pilon la. as mbër. as mbër. waaw. as noo noo suba làmb bi nga xamante ne Fallou Ndiaye da ko dara jaalee waa Bawol. waaw ok Fallou Ndiaye wax na damay nuyu gars yi di sant sama gars yi di sant kéwél parce que kéwél moom na ko leer ne am na fu dugg ci combat bi diggante mel ñàkk. li may as mbër li ma lay xamal mooy ñàkk am na combat. maa xam ne na combat da man kilifa laa ci Medina ba Medina lu ma leen wax la lañ def incha allah rabi dinañ jàppale kéwél bu baax a baax a baax mu duma ñàkk daan ko. bu soobee yàlla kéwél ñàkk ba sa yoon ñëw rek tëdd parce que mooy gën a waaw loolu laa lay xamal man maa la ko xamal boobu ma sañoon bis ba na nga ñëw rek tëdd buñ jëlee sax dexalaat da ngay ñëw tëdd. Hmm. waaw bu soobee yàlla. suba ni ngeen ko waajee yéen waa ko. Fane Ndiaye moom. dañ koy gërëm di ko gërëmaat di ko gërëm di gërëm nañ ko si bu ne. comprendre nga li mu defal waa Bawol waa Bawol yëpp kontaan nañ ci maa ngi leen di sant Fallou Ndiaye bu baax a baax a baax a baax incha allah déwén. incha allah da doon ci promoteur yi gën a mag Fallou Ndiaye na ci bopp. bépp suba fii la ñu départ fii la ñu fekk nii. Mm. fii la ñu départ fii la day range mu arène nationale arène nationale suba du yomb. sama gars yi yëpp dañ tàkk ngeen incha allah suba. Hmm. waaw bu soobee yàlla. ban heure ngeen fas yéene dugg si arène nationale. soobee yàlla incha allah rabbi cinq heures dëgg nañ fekk ñu dugg arène nationale arène nationale ñu ko bëgg a dugg ba mu fees suba. wàllu hmm. gars yi nga xam ne am na bis bu mag ba suba la xam ne am na bis damaa bool yëpp ay tur bool yëpp dañ tur bu soobee yàlla. ndeysaan jërëjëf mbokk yi kon waa Bawal la dégg ngeen li nga xamante ne euh, jot nañ ko wax ndeysaan Ndiak Sarr kaay ndeysaan ñëwal. ndeysaan suñu père Ndiaga ngi noonu ndeysaan ah, père Ndiaga siyaar naa la ça va yaa ngi maa yaa ngi am lu dëkk bi wax ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax. ñu ngi ci jàmm alhamdulilah écrit Baol sans frontière. Euh, man Baol sans frontière. waaw waaw Baol sans frontière vice président waaw waaw vice président Baol sans frontière waaw. ak Fallou Ndiaye tëggee jour tuddee bu mag suba arène nationale te 4 millions yéen en tant que waa Baol ban ci am. waaw moom bu ñu ci def lu may di kontaan. waaw di wax ne moom dafa delloo mbattu ci ndaali rek dafa def li ko war rek. parce que ñun moom amul lu may fi ñu dëkk rawatina fi ñu juddoo waaw loolu rek moo ci am solo daal ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko wax ne ko daal ñëw na ci ay bokkam te bus ba ay bokkam ànd moom lépp lu ci war bu soobee yàlla dinañ ko def waaw. lan ngay ñaax ci bis bi. ñaax sama mbokk yi daal mooy nañ fa ndekkee quoi. ndekki teel na nañ fa nañ fa xam nga jar na sax man man daal wax naa sama waa kër ñëw te itam képp kuy bool bool war ngaa wax sa waa kër ku yor ñaari jabar daal benn bi na ànd ak benn doom ñëw bu ñëw nga daggal leen bi mu dugg foog naa xajuñ ci stade bi dana waaw waaw fukki ñaar rek na ko waaye bul yem foofu parce que amuñu fayam quoi waaw ku yor ñaari jabar daal na kenn ki xaar kenn ki ñëw ànd ak benn yow muy ñett bu ku nekk ku nekk jëndee ñetti billets ak fukki pàkk ñaar foog naa stade bi fees waaw waaw man moom ah man de xam naa ne moom xam naa dama jënd trois blocs rek parce que dama dama yaatu gannaaw te maa ci gën a te maa ci gën a ndaw nag waaw te maa ci gën a ndaw waaw. waa Bawol ku ma ci laaj rek day da ngay gis kontaante boo xamante ni am nañ ko parce que ndax lu wolof naan bis du tuut borom lay tollool bis bi dafa mel ne jox na ko waa Bawol waa Bawol jëloon nañ ko seen bopp seen loxo. waaw parce que ñun moom vraiment pour man sax dañu xamul ñun li ñu doon parce que képp koo xam ne yaa ngi bëgg réewum foog naa Bawol nga njëkk a dem. képp koo xam ne am nga ko may bala nga am jàmm dem bawal kon ñun lépp lu ñuy xëccoo ci réew mi dañ si war a jot waaw dafa jot nag ñun ñi nga xam ne ñuy waa bawal ñu jox suñ maanaam xam li ñu doon te boo xoolee dañu am benn retard tuuti te retard boobu ñu ngi koy rattrapé ñu ngi koy jéem a defar quoi ak grand ba de ñu ngi koy ak ñu ndaw de Sane ak Cheikh ñoom ñu ngi koy defar parce que boo xoolee boobu ba léegi bu ñu demee ba nga xam ne am na as bu mag ñu amoon li ñu fi réussir mag ñu réussir wuñ ko woon parce que lamb bawal lamb war na fa am mais depuis que Gora jël ba léegi ci vingt ans quinze ans la de te foog naa roi des moom buñ ko amutit jege nañ ko kon li mag ñu réussir toon ñun réussir nañ ko sant yàlla rek waaw. bis bi moom rëy que kiñ ko tuddee ñi ñu ko tuddee moo ni toll bawal lañ tudd bis bi de tuddewuñ ko nit lan mooy bawal lan lan mooy bawal ngay wax ba pare bawal mooy Serigne Touba te Serigne Touba mooy àdduna. kon bis bawal lañ ko tuddee tuddee wuñ ko nit ah waaw bawal nga wax de <laughs> waaw waxoo nit de bawal na wax Serigne Touba mooy bawal te Serigne Touba bawal la dëkk kon bis bi nation lañ ko tuddee nation lañ ko tuddee àdduna lañ ko tuddee bis bi tuddee wuñ ko bawal dong waaw bawal mooy fépp mooy fépp. boo lay fépp féppay bawal ma leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi loolu lañ leen dégtaloon fii ci Medina euh, rue 7 angle 6 euh, nga xamante ni fekk nañ fi suñu papa Bada Dione fekk fi ñëpp euh, fekk fi mbër yi nga xamante ne lancé nañ appel bi nga xam ne suba jortu nañ ne arène nationale ku tey yéex a ñëw doo am place kon ñu leen di jaajëfalaat bu baax di leen tàggu ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew jërë ngeen jëf.